cheikh Mouhamadul Muntaxa yitteem ak jëfam ak kàddoom du jóg mukk ci di bàyyi xel njaboot gi waaye rawatina nag ñi nga xam ne ñoo di dongoy daara yi ne ci daaray alquraan yi di jàng kon dañuy bàyyee kàddu gi sëriñ Mamor moom cheikh Mouhamadul Fadal mu yëkkati kàddu yi sëriñ Muntaxa yooyu nga xam ne moom la ko jox ndigal. mbokki jullit yi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maak sama bokk yu tedd yi ma baaxoo àndal lu mel nii noo fi toogaat tey ci ndigal di jégg lu baax ci kàddu yi di jottali ay kàddu yu gàtt yu bàyyi yu bàyyi ko ci sunu kilifa kilifa murit yépp di Cheikh Mouhamadoul Mountakha jëm ci mboolem taalibe Serigne Touba yi njabootu Serigne Touba gi waaye jëm ci mboolem jullit yi di ko bokk ak ñoom mu wax ni mu ngi nuyu mboolem jullit yi di nuyu mboolem taalibe yi di jiital ci nuyoo ba njabatu Sëriñ Tuubaa gépp bokk yeeg taalibe yeeg ñépp di ci teg mboolem njabootu lislaam gi nekk ci réew mépp di leen seereel sant gum sant yàlla sun borom tabaraka wa taala ak sant gum sant sëriñ Touba mi ko yàlla booleel yàlla dogal mu nekkal ko fi di woo mboolem taalibe yi cant googu mu sant ak dell googu mu dellu ci yàlla taalibe yëpp mu ngi leen di ñaan ñu ànd ko ak moom delluwaat ci ki nga xam ni mooy seexul xadim mi nga xam ni mooy suñu wasiila ñun ñëpp te def ko nag ngir sàkku ngërëmul yàlla ak sàkku ngërëm moom moom Serigne Touba waaye dellu googu ñu war a dellu ci yàlla jéggulu ko sant ko jooyal suñ biir yépp ci moom mi ngi laabeeri jullit yëpp ñu ànd ko ak moom mboolem lislaam bi ñu ànd ko ak moom di wax ni mi ngi sant mboolem taalibe murit ci nga xam ni bi mu joxee ndigal bu yàggut te Cheikh Ahmadou basiir mu Cheikh Abdul Qadir jottali ko ci sant yàlla ak ñaan ko ak delloo suñu mbir ci moom ak sant Serigne Touba ak yaa dolli suñu yaakaar ci dolli yaakaar ci moom jolli suñu suñu wóolu ci moom ci lépp loo xam ne gaar nañu ak dimbalante suñu diggante ci lii nga xam ne moo xew ci àdduna bi te dimbalante man cee jariñ lu baree baree bari ndax yi yi ci war a gaare mi ngi sant baax mboolem taalibe yi ci jëfandikoo gi ñu jëfandikoo ndigal yooyu nga xam ne joxe woon ko ak laabir yooyu nga xam ne defoon na ko waaye di santaale mboolem jullit yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi rawatina kilifa yi diine yi nga xam ni waxtu wu kàddoom jugee ngir digal ay taalibeem digal taalibe Serigne Touba yi def jottali leen ko mu dig laabire ci ñoom ñu jëfe ko ñoom itam nam ko nam nam ko waxe ñu ànd koog moom digal ko seen mbooloo digal ko seen taaliba ñëpp ñu bokk ko jëfandikoo te lépp dellu ci bëgg rek lislaam bépp nekk benn ñëpp nekk benn nekk ci ginnaaw lépp loo xam ni day dëgëral diine lislaam la ca des mooy nee na mi ngi sant mboolem taalibe yi di sant mboolem defkati yu baax yi nga xam ni mësuñoo deñ di dimbali daara alxuraan yi di leen jàppale ci lépp loo xam ne lii dana tax seen mbir mën a a taxaw rawatina xew-xew bii xew yii ak xew ci àdduna bi mu amee nga xam ne am na gàllankoor yu bari yoo xam ne ñoo ko ci doon séentu waaye bi mu tàmbalee moom ci boppam def lam ca war a def jagleel ko daara yi ginnaaw bu mu defee lam def ba noppi ci réew mi mu lam jagleel daara yi ba mu ko tàmbalee ba ko ñi ba ko taalib yi déggee ñoom ñëpp ndax moom dafa daal di génne ñeent fukki tonnes ci diggante dugub ak ceeb jox ko daaray alxuraan yi ñu dimbali kooku ba ko murit yi déggee ak taalibe yi ak jullit yi ñu ci baree bari indi nañ fi seeni ndimbal def ko ci daara mu di leen sant bu baax a baax a baax a baax ci loola di leen ci ñaanal bu baax suñu borom fay leen ci ngeen ci pay ci barkeb sëriñ Touba barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne nag tey li tax mu woote woote bii mooy soññee ndimbal yooyu ñu doon def ci daara yi ñu gën koo jëme kanam ndax toll nañ ci jamono joo xam ne jii donga yi mënatuñoo génn dem fenn mënatuñoo def nenn te xam na ni Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom la fi nekkal léppam alxuraan la léppam daara la bañ na ko ba dani wàccanwu daban maskana taallumi te taallum boobu dara jiituwu ci jàng alxuraan ak jàngale ko moo tax mu ni nag kon na jaajowaat moom yitteem ci daara yi kenn ku ne xam na ni ba mu fi nekkee ba léegi lépp lu mu sémb lépp lu muy sémb daaraa cee jiitu ñëpp xam nañ loolu muy nag kon dëgg la maa ngi leen di sant ci li ngeen jëf jàppalee ma ko ci daara yi alxuraan yi waaye maa ngi leen ci gën a soññeti nag ngir yii fi xew te dongo yi nekk ci seen biir kër mënatuñoo génn te bëgguñu lenn sikk ci daara te yu mel nii waral ko ñu ànd boole suñu bopp boole suñ su lan lan lan man ak lun mënut lépp ñu def ko ci daara daara yi dimbale leen ko loolu mu ngi koy digal taalibe yëpp yim yim yim dox seen diggante ak Serigne waaye mi ngi koy ñaan jullit yi ci Sénégal yëpp ndax daara yëpp la wax fu daara nekk ci Sénégal rek fu daara nekk ci réew mi ña waaye nag da cee am lu mu ci soppi tuuti moo di ndimbal yooyu muy wax waxul ni nañ ko dajale ci benn béréb benn kenn di ko séddale daara yi di ko jël si ndax loolu mën naa indi ay daje man naa indi ay xat-xat mën naa indi ay gàllankoor waaye dafa wax ni dafa bëgg ñu defee ko defin boo xam ne wii dana sell te ña ca war a jot danañ ca jot te moo di ni kenn ku nekk yaa sës nga ak daara wala sës nga ak ay daara daara yi nga sësal daara yi nga dendal nu la ko yàlla manee man loo nga defee ko noona li yunfiq soo saatin min saatihi wa man qudira alayhi risquhu fa li yunfiq ma ataahu llah kenn ku nekk na nga mane nga defee na daara daa daara day loo xam ne lii tàmbali na te bari na te duut fi jóg bu mukk kon nag ku cee def nanga nga ca defee na xam ni wóor na la lii lu mu yàgg-yàgg doo ko bàyyee mu ni nag defin wi itam mu bëggee ko noonu ñu bañ ko dajale benn béréb dongo yi di ko jël si sëñ daara yi di ko jël si ay coow di fa am daje yi di ci am te yooyu yëpp wëratu am ci jamono jii ñu toll fi mu ak lii ak yii fi xew moo tax mu ne kenn ku nekk fa nga fa nga dëkk daara yi fa jege loo man nga yët leen ko moo xam ñam mu ñor la moo xam euh, ay ay yére la moo xam ñu ñu ñëw jël si di yére dongay daara di leen ko fóotal moo xam ñu ñëw di bale baleel kër donga yi loom lu ñu mën dal ci lépp loo xam day day day day tax daara dëgër ku dend ak daara loo ca man na ko def loolu nag yemalu ko ci biir dëkk bi rek waaye ci biir réew mépp la ko yemale digal na ko taalibe yi murit yëpp waaye ñaan na ko julit yëpp ci ci ci biir réew mi di wax nag ni moom ñaan la am ndax Serigne Touba moo wax ni man amara na ibaada bi dumaa yi li yedd faxon bihi xanil balaa yi kon balaa lu mu rëy rëy rëy rëy ñaan mën na koo daq te nee na ñaan yi muy ñaan te du ci jóg mukk am na yaakaar ju wóor ni Serigne Touba am na cër ci yàlla am ab cër ci yonent bi am ab cër ci waa ñu baax ñépp ba lépp lum ñaan suñu borom dana ko defal rawatina mu juge ci moom mi nga xam ni moo ko fi nekkal te mat ko sëkk kon nee nañ rafetal suñu jot bu baax ñaan googu itam mi ngi ñaan mboolem jullit yi bokk ko ak moom ñaanal ko réew mi ñaanal ko àdduna si ba lépp lu fi am ci ay balaa am fi ay nattu jàpp na ni seen waajur yu baax yi leen fi bàyyi ñoom ak seen ñaan yu baax seen jàmm yàlla yu sell yi ñuy def lépp lu ñaan ñoom itam suñu borom dañ leen ko may moom nag amul nattable ci ni lépp lu mu ñaan Serigne Touba Sëriñ Tuubaa dana ko defal ndax te mën na lépp te tëliwul dara ndax suñu borom moo ko may te suñu borom du may di nangu kon nag nan bokk rafet njort ñun ñëpp bokk yaakaar ñun ñëpp dolli suñu yaakaar dolli suñu kóolute dolli sunu bëgg Sëriñ Tuubaa dolli suñu gëm Sëriñ Tuubaa dolli suñu topp moom mi fu nekk dolli koo topp dolli ko wóolu dolli nekk benn ci ginnaawam bañu am benn benn baat nekk benn baat ci ginnaawam bañu am benn euh, euh, rëcc-rëcc ci ci ci lépp loo xam ne digal nañu ko lu mu nu digal ñu def ko fa saasa lu mu nu tere ñu bàyyi ko fa saasa loolu bu buñ ci saxee suñu borom dana baaxal lépp ndax lépp mi mi ngi ci moom kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo di woo ci lii mu woote itam ñu ci woo ñëpp di ci soñ ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nee na yàlla na fi yàlla dañal dañal dañal lépp yàlla na yàlla desal dañal mbas mi dindi balaa bi dindi ñàkk gi dindi lépp wuutal fi ay xéewal ak i ngëneel ci barke borom Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullah moom it ñu ñaanal ko suñu borom yàggal ko fi te wéeral ko ñàgg ni ko daan waxe ñàgg yàggal fi mboolem njabootu Serigne tubaa gi góor jigéen ndax ñooy suñu kiiraay ci lépp yal na leen fi yàlla yàggal te wéral leen te kilifa yi di suñu borom sàmm leen aar leen ci barkeem moom mii nga xam ne mooy sunu yaakaar te nekk fi Serigne Touba ñaan leen lépp kilifa yi diine ñaan leen ko ci barkeem yàlla na ko yàlla def ci barke borom Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Serigne Mamor kaddu yi ko Serigne bi yónni mat na yàlla nañ ko dégg te buñ ko jéggee déggee yàlla nañ ko jëfee mel na rek am na kàddu yoo xam ne eh, sëriñ Xaadi Jaxate dana ko ci toftal moom mi nga xam ne moo jiite wala boo bokk na ci bànqaas yi nga xam ne eh, jiite nañ ko fii ci tubaa te mu jëm ci lépp lu jëm ci wàllu njàngum alxuraan ak jàngale ko te ñuy mm, fédération bu lëkkaloo ci génn buum te daj Sénégal gépp kon ñu bàyyi kàddu gi ak sëriñ Xaadi Jaxate eh, jërëjëf sëriñ mamoor ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne yëkkati na ko eh, di jiital rek ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu boroom yokk aw fanam akuk wéram ak njabootuk sëñ Tuubaa gépp ak kilifa yi diine yëpp ak jullit yépp eh, mu mel ni noonu ko sëriñ Mamor waxee rek loolu la eh, sëriñ bi soññee di ko fàttali muy sant mbooloo mépp ci topp gi ñu topp ci ay tànkam ci taxawu daara yi te xam na ne loolu mësuñ cee jóg waaye yëg na ne feddaliku na ndax bii xew-xew bi tàmbalee daara yi tàmbalee tënku noonu ko sëriñ Mamor waxe génnee na lu baree baree bari jox ko ko ñu jëmale ko ci daara yi daara yi di ca sant bu baax te di ko ñaanal waaye mbokki taalibe yi tamit ñu baree bari topp nañ ca booba ba léegi eh, waxtu wu nekk kenn ku ne ma ngay def lam man ñenn ñi nii ko sëñ Mamor waxe di ko yëkkati joxe ko ñu séddale ko ñenn ñi di ko jëfandikoo nii nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee eh, am na ay mbooloo yu bari yoo xam ne eh, ña ngay taxawu daara yi nekkal loolu fii ci dëkk bi ci njaareem ak fu yaatoo yaatu ci biir réew mi nga xam ne li ko def lu bari la ba tax deesul mën a tudd seen tur waaye ñi ci yëg ñëpp nag nañ ci jokkoo ak sëriñ Mamor mii mu koy jotal sëriñ bi ba loola sedd xolam guy mu leen cee ñaanal dajee ceeg tawféexi suñu borom ak ndimbalam waaye nag gannaaw bu santee ba noppi ci jëf jooji yi ni ko sëriñ Mamor waxee mu yeesalaat eh, ndigalam ci murit yi ci taxawu googu nga xam ne doon nañu ko eh, taxawu daara yi te mel ne dañ koo gën a soxla ngir jamono xat gi mu gën a xat muy jëmmi tawat ji ci boppam laajut génn di wëndeelu waaye tamit lim àndal muy kufur fa bi laajutub génn ñu jëm ci koor gi boole ci kon Euh, la ñuy soxla lépp ñu di ko soxla guddi te waxtu wi du waxtu génn moo tax sëriñ bi gën cee soññewaat bëgg ñu yeesalaat ci ab taxawaay te defiin wa gën a mat gën a sell mooy ñoo ci xam ne mën nañ koo jëfal seen bopp mu baasar ca daara ya ñu dendal noona mooy na mu gëne ndax dana agg ca daara ya te ab mm, dajaloo ci ay barab ak i xat-xatloo du ci am ñu ko mënewul noonu nag suñ ko joxee ñu jàllal leen leen ko waaye kon daal dafa bëgg bu daara tuumurankee fenn muy ci tuubaa muy ci njaareem muy ci fu mu doon ci biir réew mépp ñu maase ci taxaw loolu lool nag mu jox ci ndigal taalibe yi murit yëpp waaye sàkk ko ci jullit yëpp te di ci wéttalikoo kilifa yi diine yi jàpp ne ñoom it incha allahu taala nañu baaxoo woon di ko defee lépp lu bàyyi koo ci moom ñu tas ko yaatal ko danañ ànd ak moom lii ci taxawu daara yi ba alquran ma ne sa wéy di ko jàng nañ ko war a jànge nga xam ne mbas mi du ko yëg dara du ko gàllankoor kon loolu moo doonoon kàddu yi nga xam ne moom la bëggoon a jottali euh, te bëggit muy loo xam ne lu sax la nga xam ne xew-xew bii da cey buntu waaye looloom daa war a wéy ndax alquran fu nekk dafaa war a àgg ci réew mi te dafa laaj ñu taxawu ko te jullit yee ko war a taxawu te kenn waru caa jiitu njabootu sëñ Tuubaa gi moo tax moom mu jiitu ca ba noppi di woote yàlla na ko fi yàlla yàggal mu yàgg cee jiitu ñu yàgg cee ànd ak moom ci barkeb Sëriñ Tuubaa jërëjeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Xaali jërëjëf euh, sëriñ Mamor jërëjëf itam sëriñ Muntaxa euh, ak bokk yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi yabal yëpp kadd yi ñoo ko jot a déggandoo muy kaddu yi cant ci li nga xam ne moom la weesu waaye di kaddu yi soññe ci li nga xam ne moom la dëgmal sëriñ bi wax ne alxuraan moom mooy li nga xamante ne bi mooy kaaraangeeg jullit yëpp te daara yi ñu koy jànge ña fa nekk di jàng tawat si warta tax wartatee ñu jàng euh, couvre-feu bi wartatee ñu jàng te lay tax ñu mën a jàng nag mooy ñu am luñ fa mën a nekk ba mën a jàng moo tax sëriñ bi nee na ndimbal lii nga xam ne moom lay sàkku ci jullit yëpp nag fépp koy wax ashhadu an laa ilaha illallah tey ne ci réew mi sëriñ bi nee na ndimbal loolu mi ngi koy sàkku ci yow waaye di ci jox ndag ndigal li képp koo xam ne taalibeb sëriñ Tuubaa nga ak foo ca nekkee ndimbal loolu di yem ca daara ya moo xam da ngay togg yóbbu ca daara ja moo xam da ngay jënd sa saakoy ceeb yóbbu ca daara ja moo xam la nga mënta di ko jënd na ko waxee ca na ko mëne te da ko saxal nag weer wu dee wala fukki fan ak juróom wala bis bu ne soo ko mënee nga di ko def ca daara ja ña mën a dem ca daara ja di fóot yére dongo ya ñu di ko jëlee di ko fóot ña leen di man di dimbalee ci saabu di leen dimbalee ci saabu ña man di bale ja daara ji ñu man ko bale ña man di pompe daara ji sax ñu man di ko pompe kon loolu mooy digal li bàyyi ko ci Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha jëm ci àdduna bépp waaye nag laabiiri ko nag bokki julitam yëpp waaye jox ci ndigal nag xaasatan moolee muriti Serigne Touba yëpp yàlla nañu yàlla déggaloo Serigne Mountakha te royloo ñu pastéefam eh, te maytuloo ñu ay teram wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu